tey jii dañ fi daje woon pour euh, am ndimbal goo xam ne dañ koy farli def chaque année jëme ci population bi mooy ndimbal tabaski euh, ren jii nag dañuy def joxe li ñuy wax kit alimentaire kit bi euh, juróomi kilo pomme de terre la jilo kilo juróomi kilo soble ak juróomi litre diwlin donc lu toll noonu nag dem nañ ci lu toll cent kit yoo xam dañ tànn 400 ménages yoo xam dañ ko teg jox seen loxo donc li lo xamné nak du du duguleet parce que chaque année dañ koy faral di def donc euh, am nañu benn comité de ciblage donc ñom ñoy faral di liggéey ci lolu donc tànn population yo xamné ne dañu vulnérable groupement yi de femmes ak yoy ñi nga xam ñoo ci nekk chef de quartier yi ñu xool nañ leen koy ñu leen ci jappalé di leen defal ndimbal ci bi té li nak euh, dafa bokk ci endroit liñ ligne mooy ci li son excellence président de la République monsieur euh, Macky Sall lu muy def mooy boo xoolee Covid bu mu commencé ba léegi jëndee na ay ndimbal yu takku takku takku jëmee ci population bi boo xoolee jënd na fi ceeb ceeb bi duuliñ saabu ak euh, ak yeneen pour jox ko population bi soo xoolee tamit commerce qui transporteurs yi ñu ngi leen di jàppale secteur bu nekk. am na ndimbal ñu fa dugal pour parce que xam na ne tey jii Covid bi fu mu toll nii euh, mesures sociale yi dafa war a am solo donc loolu tey jii lii ñuy def nii daa centre en droite ligne à ça fu boo xam population bi wan na leen tey ñun ñu ngi seen wet seen wet ñu ngi di leen jàppale te lu ñu mën tamit dañ ko def pour que vraiment fête bi ñu ñoom nii mooy fête tabaski bi ñu passé ko si jàmm ak salaam.